Blue Fakim prêt-à-porter benn boutique la bu baax buy jaay ay yére yoo xamante ne tarkal la lépp pour xale yu jigéen ñi ku bëgg lu rafet ku bëgg dàll yu rafet ku bëgg yére yu rafet ku bëgg lu tendance te xew ci jamono demal Blue Fakim Blue Fakim lépp lu xalaat ci lu rafet ma nga fa xale yu jigéen ñi lépp a ngi foofu xoolal ma lii ci oo xoolal ma lii ci saak bu rafet lii ci jiin ah macha allah lépp loo bëgg bon bu manqué ñu commandé la ko nga jot ci lu mu gën a gaawee. ah xoolal ma xale bu jigéen bi li mu sañsee ah lii ci dàll lii ci jin ah oo bi macha allah yaa ngi ci biir ku bëgg lu baax lépp a ngi foofu. lu fakki mu ngi nekk foofu ci Mbour en face de l'hôpital à côté du marché contact 77 649 00 13 649 00 boo ñëw ba ci marché bi boo wootee ñu jël si la incha lu fakki leen di xaar. yow xam nga ni man xew rek dëgg du neex nag ki yaa ngay waxal de dafa bon ci jeeg bu jógee toog këram ba xew amee mu ne day def mu yow xam nga ni man xew rek dëgg du neex na ki yaa ngay waxal de <laughs> loolu waxulaan la moom sama yëf la xam nga loolu sax suba lay comprendre merci sama yëf la yow xam nga loolu xew bal la yow de xam nga ni xew moom dama koo nee ñeñ sama yëf la kañ la <laughs> dafa moom ci jeeg bu jógee toog këram ba xew amee mu ne day defante si te defante xale boo xamante ne man namu ma dara sama xarit subaak oo moom mooy sama xarit am nga loolu ah, waaw allo waaw magu jàmm bu nekk maa ngi nii nam ma la ngi ci jàmm nii laa la nammee ban xew la loolu am problème après nga ñëw kër ga ma jox la ko loolu kay du problème d'accord loolu ci àddina <laughs> ah togg añ tey loo togg baax na d'ailleurs sax man tey moom yellu ma fi mm. loo togg rek c'est bon ok waa d'accord dangay ñëw fii ñëwal ci kër gi ah ngay ñëw tamit gis nga de xam nga xam nga xam nga daal xew yaa bëgg na xam mhm. Kya est-ce que mën naa la laaj benn affaire

mais kii yaa man takkuma bon bi yow laa takk. et eh, après xam nga nag maître da ngeen takk jabar pare iñaanee ko man danga maa takk ba pare iñaanee ma te duma ko nangu ndékki ngay laaj ndékki bi noonu tagal nañ la ko nga lekk bu suur tagal la say dàll fompal la ko ba mu bien bugguma ay wax nag de. nii daal nga nar a jàppee sa sëy. ba mu neex. chaque jour nga nekk ci sa téléphone lu ñor nga wax lu ñorul nga wax. da laa déranger. yéen ñi sax moom dafa am lu muy dund. ok baax na. ah. noonu nga nar a jàppee sa àdduna. tu verras avec le temps. sëram daal bu tudd Fama moom la àndalati xew comme d'habitude du lu bees. Combien Kia man maa la ko gën a xam man maa ko yar Kia du sëykat bi nga koy doxaan waxoon naa la Kia du sëykat mais nga bopp tey moo ngi nii yaa ngi koy dund. liñ naan tere tere mu të bàyyi mu gis. mais booy est-ce que xam nga ni suma waré lek bonne bon bi moma koy tegal suma waré teud bonne bon bi momay may lalal lal ma teud sangu sax suma ko waré def momay may tàngalal ndox Qui a elle passe tout son temps à traîner wala mu nek ci téléphone mais aujourd'hui je te dis hein, maa ngi non sérieusement parce que xam nga man avec mon travail c'est pas évident. non damay wàcc dama soxla sama jabar ci sama côté mu may toppatoo mais booy mënuma am loolu ci Kia li may dund man ak yàlla rek ko xam te su ma nee un mu ni ma dix. non da nga sonn nag mais nag bul fàtte avant ngaa takk Kia da wor booy bi nga doon doxaan man dama ne loolu carrément kii du sëykat bul yaakaar dama dox seen diggante. boobu nag hmm. sa diggante ak maître moo fi indi doon na ma wax sax wante bii moom sama nopp moo ma may ndax bi ngay wax ak bi man téléphone. li muy wax yëpp maa ngi koy dégg Tia nii nga nar jàppee sa sëy bi danga ma gis man sama may sëyee nii wala danga gis sama yaay muy sëyee nii sama yaay sëy ba ñëpp naw ko Tia nga jàpp sa jëkkër yi daf ko commencé fabarikaay di xëcce ka sànni buy wax nga koy tiibatu di ko sànni loxo di ko xeelu foog ne yaa rey gaynde ga Tia ñun manqué wuñu dara namuñu dara ndax Maître Amar suñu relation day mat sëkk lu ñu namm rek. mu fekk lu ci Thia sëyoo nobe def sa tànk bi daal ndakaaru di wër rek di taxawaan foo sa jëkkër tangaloo ko ndox mu sangu defaraloo ko kafe defaloo ko dara ay xas ak i xeelu sa bon daal mooy def lépp eh wax ji laa bëgg mu dakk yow nag wax ak yow jot na de hmm. nga ne yow yaay ñëw sama kër nga ne yow yaa may xas faama yow dangaa dul sa lox ci ëq yow du xam nga ma bu baax nga ni kon man togguma sëyal sama jëkkër waa kon yow man yow yaay toog di sëyal sa jëkkër yow ni ngay sëyee man bi ñaanu ma yàlla sëyee ko di togg ak yàq ak fóot kenn xamul looy ndurool yow nga ni taw nga taw bu caat gën nga di yow tabaski xar ku ko daan yow wuy ma man mii caat képp góor gu baax bu daan ñëw jëkkër kër ku muy seet ba ci président bi nga xam mo do ci rew mi Macky Sall kala daan seet man caat kon dama bëgg sama digënté ak maître ngeen gën ci na ci ba mu set wécc ngeen tëj sen lamine ku nekk di ngalam ngalamé ki di ngawti ngawté ki di ngawti ngawté fi gis nga ko man lay wër maître may sétané du ci way di wax na nekk jamm dama bëgg nga tëj sa nara pain bi nga ubbi di wax lo war ta wax li nga war ta wax est ce que may dégg ay wax nak lay bañ ak ay ciow yow mënuma yit ndax yor ma la ko jox ba ma ñëwee ay wax na nga noppi ndax su ma waxee nag doo doo ko defati yow nii rek mu ma la <laughs> sim woon mu ñaaw ndax li nga sol kaw ba suuf maa ko moom ba ci bopp bi nag yow bu ñëpp di wax dangaa war a boole pat ak organiser te noppi ndax man naw loowu ma la sama sëy nag du yaa ma ci wax kii que ce soit maître nu ma koy téewee du yow yaa ma koy wax xam naa bu baax su si majeur et vacciné li ma war a def sama sëy du yaa ma koy wax yow que ce soit la première la dernière sama kan nag am osé nan maan lii wala lii ko fayda bu nga nee yow da wax ni ba pare waaw bisa gi ci bisi de boo ko waxee xale mu yaakaar ne tabaski la xale bu jongoma bi da ngay waxal nii wante ci yaa yow di nga yóbbu bëccëgu ndara kàmm te kenn du la fa fekk te fi nga teg sa tànk bu ko teggi dama laa woo bu boobaa bu ko teggi dama lay woo bu yow di nga yenu say loxo di ñaan ma te kenn fa man da man doo ma dàq ñaar yoon benn yoon nga may dàq wante du soo paree nga toog noonu may bëgg a dee mu ngi ñëw. mën ngaa soo mm. man maa ngi soog a dund quoi. baax na yow. je te jure man ma ci woon dara dara dara. jeex na tànk. jamono ñu nekk de. Mhm. dinaa la dundaloo loo xam ne da ngay yaakaar ni àjjana bu ndaw nga nekk. non je te jure. yaakaar ni de. non instant yi moom maa ngi ci àjjana yi moom instant yi moom. Mm. paradise laay dund. <laughs> Eh, ndaw Samba. lan la sax. <laughs> te maa sama moom ak sama jëkkër ci sama digg la. yéen luy tamal lan la zaaye lii ko lan la yow. man de yaakaaruma woon sa nekk ci taxaw dama jàppoon ne danaa lan la nga dam ginnaaw ba jox la nga diw yaram mu xaw am tey ci ngay doog a balbal loolu la sax man du ma sa morom yefal man dañ maa yefal ba ma ne rek doo am ñëw nga gis ma jënd ma sa kër engagement ma te nekkatu sax sa lu ma la wax yow sax amul ma maître li la li fi lan la et puis maa ngi lay dégg tout à l'heure nga naan xanaa sama jëkkër kon yow man sa jëkkër la. kon xamoo ko woon. Hmm. Mhm. décidément. chérie. je vous en prie. ma wax la leen gis nga bon boobu nga doon wax loolu moo doon yàqal sa jëkkër di tàcc di tibb daal ma sol mën naa la wax say kala sama jëkkër sax mën naa kaa compter damay bon. nga permettre ma lepp sa biir kër xam olof ndaa dafa ne kenn du la may lepp nga jël lepp man duma la bàyyee dara duma la may dara te lo ma may ma tey am nga sax do doo cagam ndaw pareguma bu caga bu bu bu xoolal bu xay classe nga bu mag koku sa wet nag mom moom mooy caga bu gëna original bi xam nga yow dama nan sey yow tayalla rek tax dila mu ñëw rek tayalla tax waye nak tay lay wax li sa sik ndax bala ma koy wax tay la ko mëna wax bon nga kacapaan nga wéyu nga bànni nga vagabond nga xamoo lu bax do ko def. ya may deug ba ma dóor bëgg tëdd fi gis nga yow amul loy calmé ko juger mu tëdd ay pen avocat bi nga do doon lo ci dara ba dara bolo jeex waxuma ne wax avocat kërëm glace sax ya ko raw sedd nga guuy la ngay tëdd na la bana naaj kërëm tàng. glace nga wax ah kërëm glace bu mo neex. na <laughs> instant yi xoolal xam nga Olof Ndiaye dafa neex li saf ko ko ma ci ko xam li nga ñam ba wax mom la ñam jeex na. kon na ngaa màcc li saf yow yow de tey laaj